discuter ak yow nga wax ñu am ci ba ci Bercy bi yoon bi man laa bëgg nga raconté ak yoonu Bercy bi bi ñuy ñëw. xam nga ma tëdd di nelaw mu génn. boobu egg na. sama nelaw yooyu bu mu génn laa wax. egg na. bul ma génnee. egg na. dama lay porter plainte. bu ñu añ. waaw ni ngeen def ci biir si gi. waaw gis nañ la yow tamit. c'est très bien. solu. damaa mën a sañsee. la damaa mën dama laa bëgg a yóbbu. dama laa bëgg dama leen a bëgg a yóbbu ci Moustapha Diouf mu yàq leen. dañuy il n'est pas gentil. non non. il est féroce. lii mu def kenn du ko def. lii laay def mais sa robu sa góob bu petit petit ourson. petit chaperon rouge. <laughs> kontaan nañ ci yéen Mado. waaw nuyu Sénégal sa famille sa yi lay seetaan. naa sama ñaari soxna yi nuyu naa papi sama goro yi père mère ah kum nuyu naa ñëpp ñëpp ñëpp bàyyiwuma kenn ci Mor Amina Oumy Ndiaye. fàttewuma kenn bàcc ak Guillaume nuyu naa ñëpp fàttewuma kenn bàcc naan paap tout fàttewuma kenn kenn laa fàttewu toute ma famille à Thiès fàttewuma leen sama grand frère Pape Samba il est là Jafat Koné elle kenn yaama lim loo ku lim juum Badou Astou Ablo Pape Malick nuyu naa ñëpp waa léegi lan laa ko sànq ba léegi dafa am regard bu gis nga koy xoolee Youssou Ndour loolu ban regard la lan ngay yëg sa xol damaa ñëw ca ca bersi yu njëkk ya xam la ma fa wayoon moom lay way nii looloo daw sama yaram est-ce que xam nga cinq ans ngi nii cinq ans taxawuma ci lu mel nii cinq ans liggéeyoo fi ma fi indi rek liggéey mais 5 ans dama ni dama ni woon dootuma taxaw mukk mu mel ni ah sunu jëkkër Abbas jëkkëru dëgg la jëkkëru euh, ay Samb Aïda Samb ak nee naa ko dénk naa la Aïda waaw donc moom tey mu ñëw fi di représenter li nga xamante ne moom moo di Gambie sunu jëkkëru li nga xamante moo di Gambie waaye tey jour bi dafa spécial parce que tey la sa anniversaire tey la sama anniversaire alors tey naka nga bi nga xamante ne dañu jóge tey ba Gambie wala fu mu ci doon nga gis Youssou Madjiguène tey en direct lan nga yëg exactement ak bi nga gisee sa ñoom soxna mais en tant que Youssou sa xarit lan nga ci wax